Nous sommes donc euh, euh, donc euh, pour le moment Algérie est menée mené par 1 but à 0 à la deuxième minute donc mais Euh, balaa ñuy dugg ci euh, match bi dañuy am am nañ fi benn invité donc ma jox Sista Ndeya mu waxtaan ak moom. Euh, deuxième minute lañ dugal bii ah xaw naa dis lool mais buñ découragé ndax ñun ay sénégalais lañ ñun amul dara loo xam te dañ koy tiit ndax gëm nañ leen ndam bi day fanaan Sénégal nuyu naa la soxna si naa la yaa ngi zimbale. <laughs> ba mu neex maa ngi zibile ba mu neex. ba découragé woo. musuma découragé ndax max bi mi ngi doog a commencé tamit wax amul dara xewut. yaay mën nañ football te naari naari mën foo ne Sénégal laa lay de wax amul dara xewut max bien yi dogu a commencé. jàpp nga né dal tay euh, ndam bi day fanaan. Eh, coupe bi day fanaan ci Sénégal lu neex fi rew mi tool né wax amul dara xewut. Ah. hmm lañ ko bu baax donc ñu jox ko muy wax ci route ci nuyo après mu wax ci euh, premier match bi quoi. bon ma lay di nuyu yeen ñep vraiment di rafetlu liggéey bi euh, di rafetlu aussi organisation fan zone bi fii commune Guinaw Rail Sud. bon limay wax ci match bi rek moy que vraiment bon def nañ ben premier mi-temps bo xamanteni bon japp nañ ni bu équipe bi gën a continuer ci rythme bi muy footballé bon dina baax quoi seulement que euh, gis nañu naari bi ñu dugalee ba léegi football ñu dañoo reculer derrière donc boy xol match bi yëpp Sénégal moko football mais japp nañ ni incha euh, avec euh, un peu de patience ba nga di dinañu égaliser té japp naa ne bu égaliser on va gagner le match inshallah. non décourager guñu parce que dañoo xam équipe bi ñu yor nous avons une très très belle équipe bo xamanteni mo nek la première nation africaine donc ñun amuñu kenn ku ñu tiit seulement jël nañ bi bo xamanteni ni ci match bi daf ñu bet motax mo xawa démoraliser touti moralu équipe bi mais japp naa ne bu ñu 15 premières minutes di war nañu mëna égaliser té buñ égaliser naa dinañ jëlaat deuxième bi inshallah ñun Sénégal en général équipe bu bu baawee nekk kanam pour ñu duggal ko bi dañuy am problème té algérien loolu lañ commencé def ni yow lan nga xalaat né moom moy clé wu match bi. non clé wu match bi je pense que moy rythme bi ñu commencé rek il faut ñu jouer devant rek bàyyi recul le balle yi ñu def lu ëpp il faut qu'on joue devant pour marquer le but et je pense que si on marque le but libérateur incha allah le deuxième but va venir inshallah. Ah, comme ni mu ko waxee loolu la fi ni nekk nii Algérie dafa dugal Sénégal bit bi nga xamante ni bii bi kenn yaakaaru ko woon bii bi dugguñu mais bi bii bi duggee ba léegi ñoom dañoo taxaw seen kaan nangootuñu football nangootuñu génn comme ni mu ko waxee rek moom posé naa question bi nee naa ko Sénégal en général booy football ak mom, taxaw sa camp pour mu dugal la dafay jafe dafay jafe trop mais comme ni mu ko waxee rek ne joueurs yi patient tey bañ a yàkkamti parce que fi mu nii yàkkamti moo tax ñu ñu ñu ñuy rete ñoo moom match bi depuis bii bi dugg Sénégal moom moo moom match bi mais mënu fexe ba dugal donc loolu moom mooy li nga xamante ni jàpp nañ ci Cissé Ndeya bu kenn nañ jàpp ne ndam bi day fanaan fi nga xamante ne mooy Sénégal ndax ñun jàpp nañ yaakaar ne coupe bi ñoo ko moom coupe suñu coupe la dafa dafa yàgg ba léegi macha allah ñu namoon ko lool te 2002 suñu yaakaar dafa tasoon jàpp nañ ne ci kàttanu yàlla ak ci ndimbalu suñu borom incha allahu rabbi ndam bi dina fanaan fi nga xamante ne mooy Sénégal. donc foofu lañu leen di tàggoo jox leen euh, dig daje ba ci kanam. donc fin wu match bi ñu jëlaat ay yeneen réaction fekk incha allah Sénégal jël ndal jël ndam li. ngeen si ànd ak waa Pikine TV ak waa Pikine bis maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy PDG Youssou Seck borom États-Unis a ngi Sénégal dafa bëgg Sénégal nag doomu Sénégal dafa bëgg Sénégal rawatina commune de Pikine. daf ko bëgg lool ñu ngi naan fa nekk fu nekk rek sa xel na dan waa Pikine bis moom doole la ñuy demee te fu ñu dem fu ne wàcc fa suñuy noonu daal di daal ci kanam.